di leen ziar di leen ndokkeel dellusiwaat ak yéen ci yeneen jotaayu xam-xam di ñaan yàlla mbokk mi yow mi nekk ci réew mi mbaa nga nekk bitim réew suñu jotaay bi yàlla na fekk jàmm te bu la fekkee jàmm yàlla na ko yàlla na ko jariñoo ndax jëflanteeg sëñ Fallou Dramé mooy sa njariñ waxoon naa leen ko ne moom ma doy garanti naa ko tegal ci ne leen wallaahi wallaahi sëñ Fallou ñoo ngi lay nuyu di leen ziar di leen ndokkeel bàyyi la ñu ñoo ngi lay seetaan bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi ajmain fa radiallahu taala an ilhabdil qadimi ridan yasmulul ala wa sawil mahabba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ buur maa ngi lay dellu ab nuyu di nuyu sëñ duud mi nga àndal di nuyu mbokk yi nga xam ne itam ñu ngi seetaan moo xam ñi nekk ci biir réew mi la moo xam ñi nekk ci bitim réew fu mën di nekk rek ñu ngi leen di ñaanal jàmm leen ñaanal yërmande yàlla di leen ñaanal barke te muy ñett yi xam ne képp kuy dund ci kaw suuf rek yittewoo ko ko. Mm-hmm. yal na yàlla defal leen ko te defal nu ko ñaan borom bi itam ci mbaaxam ci xormaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Seexul Xadim mu def jàmm. waaye dem def daal ci réew mi waaye dem defal ko waa bitim réew incha allah. def daal mi defal ko waa bitim ni ma koy waxee nee naa bokk na ci sëriñ yi nga xamante ne di faire partie l'un des plus diplômés ci jàng xam-xam. jàng luuxul arabiya jàng turu yàlla jàng ulmul nujum yàlla may ko si muy wax dëgg yàlla kuy def résultat waaye li ma koy wax rek saa su ne fekkoo fi leneen dolloo donn loo leneen mooy tarbiya nga fi fekk jàng alquran jàngale ak ñaan yàlla ndax ku ñuy tëdd tudd sëñ Moussa Dramé borom daaru Pakacar moom dama ko naan sa maam la moo fekkoon Cheikhul Khadim xobaat sëriñ bi defal ko la ma koy defar mu dellu si Saalum di defaree ak di dimbale sëñ bi ñu ñëw Mhm. benn actualité bu ndaw mhm. combat franc forza mhm. léegi dama la koy seetlu léegi nga ni ma comme man ci chiffre la laay dox ba nii may wax ak yow forza moo teewgum bis bi waaye tekkiwul ni mooy daan ndax làmb mbër dina ko ñàkkee ci biir kéew xam ne daanaka mën nga ne àddina bi ci ci wàllu chiffre lay dox ci ku ko maîtriser ku ko jàng xam ko xamee bu wóor xam lan mooy bastu te xam ni koy defee donc seet dina la yomb daanaka fuñ la bettee rek nga mën a seet mhm. te du doon sax looy wàcc donc moo tax daanaka euh, lépp lu mën di doon rek li ci ëpp ëpp ëpp bu dee lu jàmp lool rek daanaka ci wàllu chiffre lañ koy jaaree ngir mën koo xam mhm. xam li ñu tuddee alxaalib wal maxloob te yàgg naa wax ne borom xam-xam yi duut xam-xam rek bu nekkoon ci seen dund di ko wax ci seen i làmmiñ waaye dañ koy yaxal ci ay téere bàyyi ko fi hmm. loolu moom àddina defe naa bi mu loolu mooy am mooy borom xam-xam yëpp dafa ci yàlla baaxee xam-xam yi ñu am ñu yaxal ko ci ay téere bind ko ci ay livre bàyyi ko fi solo si mooy ngir xam-xam boobu bañ a réer ñi ñëw seen ginnaaw am fuñ mën a jaaree pour jàng su ko defee nag seen gëstoo seenu sellal ak euh, associé ci borom bi yàlla mën na leen di defal nag fatu ci biir xam-xam boobu ba mm-hmm. bañ am ci loo xam ne sax mën na am ki bindi téere boobu yeggul ci woon mm-hmm. loolu yàlla da koy def donc bu dee ñaar ñi na comme ni nga ko xamee dëgg-dëgg li nga xam ne moo ci feeñ ci li ñu tuddee alxaalib wal maxlub forsa ci boppam moom moo moo feeñ ci wàllu mystique eh, maanaam moom mëneegum ba fi may waxee yow ci wàllu mystique moo gañeegum mm-hmm. waaye nag tekkul na forcément da koy day day daan day daan ngóor si ndax mën nañu dem ba ci biir làmp ji wala ba ci suur làmb ji boobu moom mu am tegtalu saraxu bis bi def ko su boobaa te loolu tamit day am secret nag yu ci nekk yu xóot yoo xam ne loolu mën na tax yi fii ëlbatiku nga ñaali dellu si ci moom moom mu ñàkk ko mm-hmm. donc loolu tam mat naa bàyyi xel moo tax làmb moom kenn du ko négliger benn yoon la sëgg bi amul rek arbitre bi dox seen diggante daal di génn daanaka moom bépp tegtal buñ la ci wax wala lépp luñ la jox rek daanaka bul ko neenal bul ko négliger donc loolu la donc mm-hmm. ni nga ñun dañ ciy dellu lu bari ndax dañ ko gëm gëm gi it li ci jàkk rek mooy comme alxuraan da ko tudd lu bari yàlla ci sunu yàlla sunu borom subhaanahu wa taala da ko tudd lu bari lu mm-hmm. mu tudd weer ñu ngi ko def fukki weer ak ñaar mm-hmm. asamaan ak suuf euh, ñu ngi bind asamaan ci juróom benni benn bis xalaqa samaawaati wal arda fi sittati ayaamin juróom benn bis mm-hmm. ci li nit mën a dégg wax ne moo bind juróom-ñaari asamaan bi juróom-ñaari suuf yëpp di ay chiffres di ay lim donc yàlla tudd ko noonu rek faw daw yan waaye dafa am lu muy tegtale dafa am lu muy wane chiffre bu ci nekk rek am na lu muy teg par exemple maa ngi wax sànq ne ki nga xam dafa juddu la treize xam nga treize maa ngi wax ne boo ne treize quatre lay jox hmm. waaw treize quatre lay jox parce que trois la ak plus un waaw donc quatre la lay jox boo ne nit ki mu ngi juddu la seize loolu sept la lay jox hmm. dégg nga parce que da nga def 6 euh, plus 1 kooku lay joxe. Hmm. léegi chiffres yooyu yëpp nag lenn lu ci nekk dafa am lu muy tegtale lu muy wane itam ci dundum nit ki. ñu judd ci waxtu woowu wala ci bis boobu. wala ci weer woowu lenn lu ci nekk rek chiffre ba mu jàpp dafa am lu muy seebul bu muy wane donc mm. dafa nekk daal xam-xam bu am solo boo xam ne ëpp naa neelal daal waaye man ni nga koy waxee chiffre dafay dellu si waat rek man dama gis tubaab yi mm-hmm. ci chiffre la ñu seet ak i mm-hmm. carte ak horoscope ah, mooy diw verge la diw balance la diw scorpion la jàng xam-xam la rek xam-xam moom xam-xam moom ku ko jàng rek te yàlla waajal ci sa yuur nga mën koo dégg rek da nga koy dégg mm-hmm. muy tubaab bi comme muy naar bi comme muy africain beeg yëpp rek ku ko jàng rek te jàngoo jàngatoo ko daa ko dégg donc loolu lépp ay xam-xam lu la dox ndax loo xam ne dafay jàpp ay weer weer yooyu dafa am nombre bu ñu taxawee ki juddu mars mars am na position bu taxawee ci biir weer yi mm-hmm. dégg nga janvier boo ko waxee ci seen weeru tubaab bi mooy première nu ñu koy tuddee weer bi bi ci ñoom weer bi ci at mm-hmm. dégg mm-hmm. loolu doon gi mu doon dafa am lu muy tegtale par exemple ci ñun boo ne muharram doon gi mu doon weer bu jàkk dafa am lu muy tegtale ki ci ki juddu donc yooyu yëpp dafay jàpp ay chiffres dégg nga bu jàppee chiffre itam bis bi mu judd ci biir ci biir weer wi ban date la. loolu itam dafa am lu muy suy. Mm-hmm. donc yëpp boo nangam ci mois nangam. waaw su ko defee nag maanaam loolu lépp day delluwaale ci biddiwu nit ki. Mm-hmm. ndax nit ku ci nekk rek am na biddiw bu mu judd. léegi nag biddiw boobu mën nga ne mooy ADN bi nga xam ne euh, moo denc ci mbooleem code euh, yi nga xam ne. Euh, mbiri doomu bi ak secret nara am ci biir dundam yëpp mhm. daanaka foofu lañ ko foofu lañ ko doxee mhm. mu mel ni nit ki rek la muy doonee ci baayam wala yaayam mhm. wala maamam ji jur yaayam wala maamam ju njëkk njëkk wala ju ñeenteel sax léegi léegi xam nga nit mën na judd ci wàllu scientifique rek niruwul baay bi niruwul yaay bi mën nañu def mën nañu jàpp ne baay bu jurul ko te erreur la parce que boo boo ko toppee mën naa mu niru ñetteelu maamam wala ñeenteelu wala ñeenteelu maamam waaw parce que ci wàllu génétique dafa mm. am lu doy waar yooyu lenn lu ci nekk dafa am lu muy wax te léegi nag secret yi nit ki di hérité ci ci ay maamam mm. fa mu nekk ci biir ADN bi loolu nit mënu ko xam du saa su ne la it lay feeñ mm-hmm. donc mën na tëbal maamam bi dem jëli maamam bee donc yooyu itam daanaka buñ ko doon muxaarana li ñu tuddee comparaison daanaka loolu lay xaw a jege rek. Mm-hmm. man tey dama dagg sa benn vidéo sur TikTok bi Ada Fass amee problème ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla na ko eh, da nga ne woon da xool mbir mi. Mm-hmm. ne sëy bi benn bu demee dina ma jaaxal. Mm-hmm. ñaareel bi bu coow li dàqal te bi demit Ada Fass mën naa mi tolof tolof eh, te loolu ci seet rek nga ko tegoon muy seet bu wér. seet la seet rek moo ko génnee. ndax nun du wax dara. xam nga lépp lu ñuy wax dafay dellu ci ñaar loo xam ne dañ ko mm-hmm. analyser nii scientifiquement mm-hmm. ñu tuddee observer xool fee sukkandiku ci ci fee yi mm-hmm. analyser ko comme nit rek wax na lii lii la wala boog ñu seet ko nga xam ne wàllu mystique la seet bi itam doon seet sot bu wóor te xam-xam bu nga seet ko li li ci yàlla woon nga wax ko donc loolu la aada euh, phase bi itam bi ñu ko xoolee loolu lañ ci gisoon rek mooy ñaar yooyu ma waxoon mooy sëy bu yàqu wala moom ci boppam carrière am dina ci am coow lu ko ci topp maam dina ci am jafe-jafe daal. Mm. donc loolu moo tax beneen bi ci des itam mooy ci wàllu analyse itam boo delloo ci wàllu science euh, comme sëñ bu mag bi tudd na ko ci euh, sindi di rek dafa mat a moytu muy coow. Mm. ndax sëñ tubaab bu demee bay muslu ci làmmañ. kon mm-hmm. nit ki surtout ndaw war na fexe di moytu def lu ko coow di toppee. Mm-hmm. dañu wax ne sagal picc la moo xam ne garab gu mu yendu bu bu demee garab ga dee. Mm-hmm. dégg nga kon loolu mag ñi bu buñ ko dee wax. li ci jublu mooy. te loolu picc la rek. picc rek la donc loolu li ci mag ñi jublu mooy coow jigul bant bi waxuma la ak nit. Mm-hmm. donc loolu nit da ko war di du ko donc mm-hmm. loolu lañ ciy jublu woon. waaye du loo xam ne dañ ko ko doon souhaité. Mhm. waaye comme luñ gis la rek wax ko rek. loolu loolu bu sëñ bi ñaan yàlla li nga daan wax rek lu am la lu nekk la man la lu ne defoon rek réew mi fi mu ne ñu toll ci xeex mun naa ne wax dëgg xeexu baatin. moo gën a feeñ ci langul politique mhm. ku ko wax ak ku ko waxul. Mhm. tey Ousmane Sonko dellu na Ziguinchor dellu ci ay mbokkam ne ñëwuma. ay saar na ne ñëw ñu àtte ñu. ñii ne dafa war dem moom mënatu dem. ba tax na mardi bii ñu jëm. tiitaange am na sëñ mardi la lan mhm. waaw de cinq la chiffre cinq la mhm. yàlla mën na ko ci dimbale mhm. moom Sonko mu génn ci chiffre cinq la waaye li am solo mooy xam nga politique malheureusement fii ni ñu koy defee ak sax réew yu bari rek dañ ko seppi ci cadre jaamu yàlla te man loolu ba ba léegi ni damay wax ne erreur gënu ko rëy ndax gis nga jaamu yàlla yi bu ñu ko bëgg yemale ci kurus gi ak raakan yi guy jullee bàyyi ba koor ñëw nga mu war sa weeru koor mm. loolu erreur gënu ko rëy ndax bu fekk yàlla dafa wax ne wa maa xalaqtu jinne wala si ilaa liya'buduun dafa mm. dire que mooy bindu ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma mm. kon nag lu doonul julli doonul woor doonul nota asaka wala dem màkka am na yeneen xeeti waaw bu fekkee ne loolu da nga jàppee jaamu yàlla te yàlla na binduma la wàcciwuma la fii lu dul nga jaam ma kon yeneen activités yi nit di def te duggul ci yooyu foo koy dugal mm-hmm. loolu mooy mooy gravité bi te politique day jaamu yàlla bu rëy rëy rëy ndax pour jëriñ sa askan li ci gën a gaaw mooy jaaree ko ci wàllu politique. Mm-hmm. mais léegi nag dañ ko déformé ci façon bu nga xam ne daanaka rek mooy daanaka li ci ëpp mooy wax loo gëmul. Mm-hmm. dige loo narul wax loolu def daanaka daal ay ay ay ay ay wuruj ak i galgalante moo ci ëpp daal dañu dem ba salteen ko ba nga xam ne. Mm-hmm. daanaka wuutuwul lool ak liy xew boo dee xool documentaire yi ci àll bi rek. léeg-léeg gaynde gi gis lu mu bëgg ñëw fàddu ko. dégg nga bukki bi gis lu mu bëgg ñëw fàdd ko yooyu daanaka te nit nag warul dugal ci boppam li ñu tuddee al waxsiya mm-hmm. waxsiya mooy li ngeen tuddee animosité loolu nit dundam warul yegg foofu maanaam mën nañu wuute waaye nag war nañu fexe ba am ah, nu ñu nu ñu mën a dimbalante nu ñu mën a jàppalante ci yi ñu wuutee xam nga dañuy wax ci usul ndax daanaka nun loolu mooy sunu baas mm-hmm. ndax côté boobu la sunu jàng gën a xóotee mm-hmm. dañuy wax ne yi ñu dëppoo ñii ñuy dëppoo nañu ci ànd nañu ci ànd euh, liggéey ci yi nga xam dañ ci wuute euh, ñu doglante ci ngànt wala ñu jàppalante ci sax. Hmm. waaw ndax àddina li ko yàlla bindee mooy ñëpp moom mënuñoo bokk nu ñu gisee. ci benn sens. Hmm. mënuñoo bokk nu ñu gisee su ko defee nag li am solo mooy Sonko noonu la du wéyu ji ginnaaw bi xëy na am na kàddu yu mu rotal wax ne xëy na bu condition yi dajee mu wéyu ji léegi nag condition yi mu teg defe naa ne jafewul. jefewul mooy ñi mu ko séqal mën nañ ko ko may. nañ ma bàyyi ma demal sama bopp donc nañ ko bàyyi mu demal boppam. te mm-hmm. ñu bañ ko xàllal yoon. Mm-hmm. Euh, bàyyi ko mu ànd ak ñi mu bëgg a àndal l'essentiel mooy heure bi nga xam ne dañ dañ ko convoqué moom mu fexe ba heure ba fekk ko fa rek donc loolu mooy ci am solo su ko defee. Mm-hmm. danañ mën a réserver sunu njaboot. réserver sunu dëkk réserver sunu alal ba nga xam ne dara du yàqu ndax itam à chaque fois ay bakkan di rot Euh, nit ñi di ñàkk xëy lu mat ñaari at loolu itam wax dëgg yàlla. moom ëpp na nag ëpp na nag. ëpp na te mbir day yegg foo xam ne. Euh, damay ragal yàlla mujj ci génn te su boobaa nag picc xool rek moo fi des. maa day taal te lu boobu loolu lu boobaa du baax ci réew mi. Mhm. sëñ bi tey da nga jóge ci tukki ku ne xam ne sax dañu wàññi sa loxo ndax gaa ji ci namm guñ la namoon euh, bëgg sa semaine ñoom di la gis. Mhm. man noonu lañ ma ko waxee. Mhm. buur buñ sañoon sëñ Fall Blanc bi dañ koy gis ndax macha allah xam-xam bi ak fasaa bi di ñaan yàlla dëggal ko te ubbiwaat dënn bi ndax boo toogee duñu gis ci yow euh, li gën a am solo. te mu gën maa neex te saa bu ñu ko waxee cew mu neex ma mooy sëriñ bi boo koy xool doo gis ci moom image yu ab njabarkat ndax ñoom noonu la ñu jàppee daanaka ñu ci bari ñuy feeñ ci internet bi waaye suñ fàllu ku koy xool da ngay gis ci moom nitu yàlla da ngay gis ci moom nit ku géeju ci xam-xam da gis ci moom nit ku sonn ci xam-xam macha allah nit ku mën a sonn it ci yittee jaam ñi man leen man maa ci xam dara sonn ci yittee jaam ñi ba boo xawee yàkkamti sax <laughs> mu delloowaat la sa xaalis ndax gën na ni que jaamu yàlla la buy ñaan yàlla njort njort ci boromam dina ko may sëñ Pape lay tàggoo. waaw moom de moom noonu nga ko waxee noonu rek la. Mhm. ndax moom eh, yàkkamti baaxul. Mhm. xam nga yàlla ci boppam jëflante na ak saxaaba yi. Mhm. ak ñi jiitu sax ba saxaaba yi yegg ci di wax mata nasrullahi. ndax ndax xaw a rek. di laa cekkee leen dimbalu yàlla di ñëwal fekk yàlla mooy dox doxalee noonu moo tax yàkkamti baaxul parfois nag yëf yi moo demee noonu léeg-léeg nga gis ñu xaw a ñàkk sago ndax liggéey bi léegi-léegi mën na laa tënk ci façon bu nga xam ne ku amul sago rek euh, mën na mën na di jafe-jafe waaye itam du tee rek comme yàlla may nanu dal ak intelligence boo xam ne lu mën a ñëw rek daañu xam fañ ko jaane ndax nit ki itam defar loolu lay jariñ mm-hmm. waaw day tax li ngay gis te mu mu xaw a niru lu jaax la nga mën ko régler rek loolu la mm-hmm. su ko defee ñoo ngi ñaan yàlla rek képp ku aajam nar a faju rek eh, ni ñu koy baaxoo ñaane bu gisee yàlla na xelam dem ci woote rek mm-hmm. incha allah te itam ku fi ñëw rek sa aajo dana faju nag ndax eh, mbóot yaa ngi fi secret yaa ngi fi eh, ñu jëlee ko ci mag ñi booleeg li ñu jàngoon te lépp du nekk lu wér rek incha allah kon li ñu tàggoo rek mooy li ñu tëjee woon li ñu li ñu li ñu tàggoo mooy li ñu ubbee woon eh, mooy ñaan yàlla mu def jàmm waaye itam ñaan ko mu def dal ci réew mi def ko ci bitim réew muy jaaxle yi ak lu mën di sabab seen jaaxle ñu ngi ñaan yàlla mu tegg leen ko ci xormaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu leen sant baax di leen gërëm